tàmbalee rek fi ñu daan tàmbalee mooy di sant suñu borom di julli ci alayhi salaatu wasalaam di ñaanal suñu wayjur wu jigéen fa mu tëdd ca barsax yàlla ko fa yërmande suñu borom fekk moom ak ak ko fekk di ñaanal suñu wayjuru góor yàlla suñu borom sàmm ko di feddali suñu yaakaar ak suñu cofeel suñu buntu cheikhul xadim di baabul xayri cheikhu chiyooxi cheikh al murabbi mawlaana cheikh ibrahim ibn sëriñ mbàkki madina diko ñaanal sama borom defal ko ridan barakatan barahmatan fi barakat Cheikhul Khadim seen Cheikh Madina mi nga xam tay mo tok togaay borom Madina di ñaan yàlla togaam yàlla na sax waye di ñaanal doomi Cheikh musul Karim Cheikh abdul Moukhtar yàlla dolel ko katan ko waye di ziar ak ñaanal al fatul amr li tariqatul muridina Cheikh Mouhamadul Muntaqa ci nam ko waxe won rek ne lay kalimatillahi al ulya ñu ñaan yàlla mi nga xam moo ko yen yen bi yàlla ko yàlla taawulee ba yen bi du laal suuf ndaak di la nuyu nuyu sa caméraman di nuyu gaymaar booy bu lakkale sonal na ma trop wana mu guddi wana mu bëccëg gaymaar yàlla na yàlla ma yàlla àtteeg moom en tout cas di leen euh, encouragé bu baax ci projet bu rëy bi nga xam ni mooy DBC di ñaan yàlla yàlla barkeel ko rek comme ni mu barkeelee projet ba yéen employé ku ci nekk mën ci gis sa bopp waaye notamment aussi sénégalais yi mën ci gis seen bopp wante buur dama bëggoon ñu ñëw ci tur bi buur géwél lu waral buur géwél ndax ñun Sénégal xam nañ ne benn buur la am muy président de la république yow nga ñëw ne yaay buur géwél foo teg loolu noonu. Euh, tuddeewu ma ko sax sama bopp de génn góor gu baax gu ñuy wax alaaji Malick Guèye communicateur traditionnel di ñaan yàlla yàlla na ko yàlla yokk wér euh, boobu <clears throat> maa ngi mbappatu ci mbappatu mbedd yi <clears throat> ngeen baal <clears throat> bés dama ñëw benn mbappat bu ñu jëloon jamono boobu man boo ma jëlee mbapat bu dee trois jours la journée bu nekk yaa ngi may fay trente mille ñu dajee première jour bi nga am les jeunes promoteurs ñoo ko tuddoon ñoo ko tëggoon ma daje fa ak ajartu Fatim Diop da baax mu baax mi nga xam damay wax ni tey mooy sama maîtresse ci làmb di ñaan yàlla yàlla na ko yàlla yërëm di ñaan yàlla yàlla na ko soppe mba Serigne Babacar si teeru ndax tey <clears throat> lu ma am ci làmb yàlla ak bakkanam la ñu dese fa góor gi di julli ji saal yëkkati micro bi jox ma ne ma téel nga jàpp temps bu mu julli ba pare góor gi julli ba pare dégg li may wax mu ñëw dugg ci géew ma tàllal ko micro bi mu ne ma déedéet Bour Gueweul yeggale ko maa ngi ci kaw ndax li ngay wax mun ma teg dara yéeg ci kaw foofu la Bour Gueweul bi commencé nag ma wax ñetti fan yi làmb ja jaxasoo lool ndax boobu à bu mbëri daan bëre tëggkat bi daan tëgg monsieur Yacine Mbaye soo da wadd ajal sol bu da wadd bu mu baax mi di ñaan fëgg boppam daan way mook sëri mi ñoom maan ñoom aminta di way way wu diib quoi man ma daan rapporter la komba loolu dafa daan séduire ñi dëkkoon aux alentours ba dañ daan ñëw dagg tikki di saan làmb ji donte que bon aw woon sax intention ñëw saan si ko mais reportage ak way yi ak tëgg mi dafa daan dafa dafa daan ànd burgeel bi nag foofu la

politique yàgg na ci àddina waaye man dama gëm ni que ñun la société sénégalaise politique waruñu mën a diviser pour plusieurs raisons ndax tey benn ay waaso yu am ay kalante lañu diggante joolaa ak séeréer diggante séeréer ak tukulóor diggante pël ak tëgg ba ci sant ki sant njaay ak jóob maanaam dañu am cohabitation boo xamante ni ko ñun suñu biir bi ko fa mag ñi di sanc sete ko woon pour ñu nekk ban donc nañu moytu li diviser yenn dëkk yi diviser ñu mooy damay wax ni nañu moytu débat ci wàllu ethnie te politiciens yi ñu ngi koy bëgg a dugal ci réew mi diw joolaa la diw séeréer la diw pël la nañu moytu débat ci wàllu diine diw chrétien la du musulman la à 99 personnes de musulmans nangam nangam wala du le président du murit le président moo tax diw la déedéet que Sénégal Ils ont ndey ñi jox le président Senghor bi indépendance de 1960

kon yàlla programme am la am di ko dérouler ak di ko doxal ñi nga xamante ne aussi jàppee nañ leen comme ay détenu politique su yoon mu ne yolomal ci ñoom ndax loolu mu mën a indi jàmm ci réew ku ci mel ni la président Ousmane Sonko il est l'espoir de tout un peuple ak lu mën a am man soutenir wu ma ko jàppale wu ko jàppale wu ma Samba jàppale wu ma Demba mais mu Moulay Abdel Aziz Al Amin laa daan dégg mu ne koo xam ni bu meree nee na am réew mer ne kooku looy jëflanteeg moom da ko war a xam bu fekkee ni que gis nañu ni que kat dañu war a yolomal mbir yi ci moom mu dellu ci ak njabootam nañ ko def ñoom ñu féetee ci kujje gi tamit ñu gën a am ay discours yu responsable am réew. Ken du ko tal par ton propre intérêt wala wala wala par les intérêts partisans Moi juklen, talen, taal tenez-vous prêts la résistance Ni moi ci gën a moi nag mooy les activistes Le phénomène bu bees la bu am ci Bohamne, c'est un phénomène incompréhensible kenn mënu comprendre Moi, weer ay jabari sëriñ khas ay jabari kilifa yor naa seeni les motifs diw ak diw ak diw dañoon nangam sëriñ diw day màndi maanaam nit ñi nag bu fekkee Sénégal fii danga fi bëgg dara da ngay waggar suñu kilifa yi d'abord parce que suñu kilifa yi ñooy les détenteurs de cette paix sociale bi ñuy dund activistes yi nañu bàyyi réew mi ci ni mu mel xam ne ñoom ci réew mii ñu jóge tey dem Europe seeni ndey ak seeni bàyyi fii lañ soxe ko ñoom soxe ko ci réew mi lu ñu am réew mi leen ko jox te luñu ñu amit suba japp naa ci réew mi lañ koy delloo mais juk leen na fepp tak na fepp tak ban wax ban genre wax la bu fépp tàkk bu fepp takke yow mo tok di gox wax mën nga ci muccu waaye sa nday mën na ci bañ muccu ak sa bay wala sa jarbat ba sa dombu jigen donc d'une manière générale ñom ñëpp na ku ci nek xam lila war nga def ko kilif na xam ni dañ ko denk waye momul kii laaj na xam ni dafa bëgg a defar dong moo tax muy laaj kilifa diine bi na xam ne ñi mu yilif du ñu ay jaamam ay nawleem lañu taalibe bi na xam ne sëriñ bi tamit du yàlla dafa yaakaar ci moom nañ ko na ko alquran waxee yaa ayyuhal lazina amanu ittaqullaha taqul alayhi wasila yoon la ak bunt moom bu mën a jaaree dem ci boromam góor fonk jigéen yërëm ko jigéen fonk góor ormal ko baay dom doom yar ko doom yërëm baay jàpp ko non la am réew dox nga tey boo demee ci asiatique bo demé ay Corée ay Chine ay Japon xam nga lu ñu dañuy société bo xamante ni que dafa am ci ay valeurs ancestrales yo xamni ci lañu teunk ba la puissance melni Japon mom rek ngay dem gis fa un un empereur même bu empereur ba amé cinq ans mooy sen empereur parce que valeur yi lañ fekkoon pendant des siècles donc nañu waxtaanaat andat xam ne mi ci ànd ak ci waxtaan lañ ko ma a defaree. non man pratiquement euh, nit ku libre la sur mes pensées mooy euh, ñaari ginaar sax buñ dee xeex di nga am koo faral sincèrement bu bés ba jotee dinaa ànd ak ñëpp dem ji kamay bu ma duggee sama biir urne man ma man maa koy mais pour sama position politique moom loolu ma maanaam sama position politique là non mënuma politique du ni sax par nul nul n'est apolitique dans la vie mooy ci naka lan nga bëgg tuddé politique mooy ñi nek ci mbedd mi ngàññante ñooñu politique dafa bari politique de développement amna politique de nangam ak nangam am man ci lima nek nekk je suis un communicant ci milieu presse en ligne bi la nek donc dafay aajow ma am taxaway bo xamante ne ko war ko am war mu may nekk benn communicateur bi xalamal kenn wala di ko wayal wala naan ñu jëm leen fii di wax dëgg yàlla lekk mu dërëmu kenn. te nekk di leen di jox dara ci suuf pour ngeen di koy utiliser ndaxte bëri na fi. ñëw rek compal la jox la dem. kan nga gisagum compal ko jox ma ci benn non. non non dama lay laaj yow laay laaj ndax ñëwuñu di leen di compal. ndax yaa ngi waxtaan ak ku garaaw. <laughs> léegi yi léegi mën nga ma jox benn noon bu ñu bu ñu compal. xaw ma ko sax.

mais dafay dépendre ci nit ki mooy kan d'abord am na ñoo xam ne lu ñoom doy na leen ndax yow ndaat man ci dëkk bi laa dëkk mel naa fi ni war a mel su ma doon dundee li gars yi dundee romb naa fii de man oto bi may bi bu cher bu cher trois millions lay jar gars yi ay ranch la ñuy dawal ay oto yu jar ay quinze millions ay vingt millions te wax doo nga leen koy may mais man sama njëkk xam naa ko man it amul sax fit boobu yàlla nag def na ma lool nag mooy man lekk ma ceebu kenn donc loolu bu fekkee am nañu koy defit ñoom la concerné waaye daal nañu xam ni moom li alquran naan fa yasla naarun kubra suma la yamutu fiha wala yaxya lépp lu waaye def wala nga lekk ko ci dërëmu gerag wala yu nangam bu la joye wala xeex ngaa duggaal jara wala safara sa boroom ñoo la ko atte donc loolu amul solo nit li mu war a lekk ci àddina lay lekk ba saa bu jeexee mujj borom kon jarul jarul yenni bu ko defee buur dañuy ñëw dugg si li nga xam ne moo di làmb bi nga xam ne moo tax ñu naan làmb dekki na bi nga xam ne moo war a am le 5 novembre fële ci arène nationale di dox ci diggante ki nga xam ne moo di Modou Lo ak Ama Baldé làmb boobu yow nan nga koy xaaree. làmb ju compliqué la ba tey est am parce que tey xëy naa tey gis benn article boo xam ne sur Dakaractu euh, ndax ku ne xam ne le promoteur Luc Nicolaï daf ci amoon. ben contentieux bu doxal ci digganteem ak ben waa junior, pap wax Pape ben amoon benn plateforme bu bu ñuy wax xam nga bi ñu demee tribunal Luc mo gagné won le procès le procureur interjecté appel ba ñom ñu wara a le 24 bi mardi donc bu fekkee dañu wuy le 24 xamulo bonne issue le procès bobu di amaat te lamb jooju dama koy wax dafa teunku ci procès bobu man maa ngi koy wax di ko wax di ko waxaat mais dafa melni ken deguma c'est pas pour xexma ma wala ma dem mais lamb ju compliqué la parce que ci soiru làmb ñu ngi soo gis combat bu def 6 ans avance bok bu def 6 ans ci soiru làmb te lolu c'est à rectifier parce que c'est pas normal moy tay ci yone avance yi dafa war am durée de vie moy tay promoteur bi CNG war na ko fixer ay règles yo xamné dañ ko naan boo joxee mbër mi avance ci délai sàngam mbër mi dafa war bëre dafa war a bëre su fekkee dafa gaañu wala nangam bu amul cas de force majeure dafa war a bëre ci sàngam ak sàngam ci date sàngam su ko weesee dafay am obligation delloo la xaalis wala nga tëgg beneen combat mais combat bu diire six ans même c'est trop sénégalais yi doyal nañ ci avance boobu li ñu gis bëgg ko rek mooy ne ñaari mbër yu bëri ñu tourner la page di combat bu décisif nag bu amee parce que li jotaam man mi àndoon naa ak ñoom bi man mi génn naa def benn sorti sax daanaka tuuti ñu suqi ma mais dara làmb moo noonu mais li mën a am ba mën a mooy Ama Baldé joggi na fóor mooy gëm na ni que dafa daan Modou Xarañ Lo loolu sax nag si lay ñëw Ama Baldé jóge na fu wóor dégg nga keroog la mu wax nee na ko su ma yàggoon gis euh, du ma fere ci yow cent franc est-ce que moom est-ce que moom tey nekkul di xeeb ki nga xam ne Modou Modou Lo xam nga tay ku melni modlo euh boy dajé ak mom da ngay utiyewu lu bari parce que nak il est l'actuel roi des arènes ak lu manam dañ wax ni goudou rëyul mais il est le le lutteur le plus populaire de l'histoire de la lutte bo xolé carrière am ku dul Bombardier ak Balla Gaye 2 mosoo donc il a une très brillante carrière bari nak champion yëpp. ba tey dégg daali Pikine googu Eumeu Sène di bàyyeekoo dugg na fa def fa ay ravage ba ki ci mujj mooy magam Eumeu Sène da ko dóor mu daanu donc li wóor bu wóor mooy ko Ama Baldé dafa mës gëm ni man je ma rappelle en 2012 fekk naa ko Pikine dem rek laay gisee ak sama grand tafanaar mu di ma ko rappelé baat ba ma waxoon moo a jaaxal te boobu bi mu koy wax Modou Lo bëreegul titre roi des arènes ndax dama ñëw mu ne ma buur ma ne quoi mu ne ma sama daan Modou nekk roi des arènes ni ma leeree su ma ko sama dee leeroon ma dee dem àjjana te boobu Modou Lo bëriwul un combat royal boobu Ama Baldé jotagul avance ndax boobu mu ngi jugi ci guy jotagul avance am contre Papa donc dee nañ ko ak lu mën a am am na sañ-sañ nag bu mën a daan Modou ak lu mën a am am na fit wi am na ngor mi am na njàmbaar li waaye nag ki muy dajal mooy kan bi mu purga pour nga daan ko foog nga ko doole ñetti yoon ki muy dajal foog nga agressé ko pour mën ko daan ki muy dajal foog nga ko bëri lool pour mën ko daan muy Modou Xarañ Lo wallahi alias ñaa ko faral dimanche damay dawal keroog sama oto ba mu sama xel dem ci bu runkum dajé man yora dee mor bu runkum dajé ku am cardiaque ñi am cardiaque combat bu ñu ko seetaan ndax mut Lo ak Ama Baldé bu ñu mbëkkantee rang billaahi da nga gis ko kiriis waaye parce que dañuy fital loolu rëy na de. dañuy fital jaar loolu mi def mënu ci dara parce que dañu xiifante ñoom it dañu daje woon ca 2009 ca parcelle Mbapat Modou Lo daan Ama Baldé mu metti ko lool ma dégg ci làmb ñu Ama Baldé mu ne ko suma demone suma beuri wul ak yow suma demone ba magat nga magat nga yori beke ma yori beeke bes buñu dajé dina dinaa nangu say beeke sànni ko sama beke beeke sànni bëri yow donc ben am Ama Baldé bu ko woro ne day dan modlo Lo sax tay faatul na dan te modlo Lo gëm na ni ko tout sauf Ama gem gëm na ni ku ne mën nga ko dan ba mu des ndax combat bi li ci am dafa bari wax ci dafa bari xeexoo bi xuloo bi werante bi mooy combat bi ëpp tension ci histoire la buur kii di Modou Lo dafa rëy yaa ngi koy wax sànq am na vingt victoires am trois défaites ak benn match nul moom mais Modou ci carrière mun nañoo seetlu ne képp kuy jiital tànk droite mosoo ko daan te amaa Baldé droite lay jiital léegi loolu est-ce que du signe tey buy wone ne Ama Baldé mënul daan Modou Lo xam nga làmb sport de combat la mën nga am benn pied d'appui ñu dóor la nga tërëf wala nga changé wala nga changé taxawaay loolu dafay am ça ne pas dire que Modou Lo gauche la Ama pied euh, droite la Ama pied gauche la teg rek Modou Lo moo moo am potentialité pour daan ko non làmb doxewul noonu mooy làmb mbër dina léwtoo wet dem wet mbër dina léwtoo arrière mbër dina léwtoo gëdd gis nga combat boobu jarul pied gauche ak pied droite ak pied arrière mooy bu arbitre ne pirip runkum lay doon dañuy daje mooy gisuma ni sax làmb jooj dana am round d'observation gëwuma ko nga ku ci nekk ñoom ñaar xam nga sa morom mais li gën a intéressant mooy ku ci nekk ñoom da nga xiif sa morom na sa morom ñëw nga defal ko li nga koy defal wax ji jaax foofu la gaa yi toll de. léegi du ay pied gauche ak ay pied droite dañuy fital jiyaar. pour préparation physique euh, dafa am solo si mbër ñu gis ne moo Modou loo su amaan combat day nëbbatu kenn du ko gis ñu gis ne combat bi Modou Lo maanaam nëbbatuwut te nit ñi nee nañ entraîné wut est-ce que nekkul ne tey Ama Baldé dafa dox si maynam ku la wax ni Modou Lo entraîné wul mu ngi lay nax gis bokk na ci mbër yi ëpp résistance physique ci làmb ci mooy tey boo ko fekkoon entraînement ñi muy entraîné dool mën nañoo dem ba sonn bàyyi moom de mel dafay soo commencé yàlla moo ko may tey man mii dem naa fi Gàmbi ne amaa Baldé mii ma gis état am yor neexuma mais bi mu génnaatee dama kontaan wax ja man saaga nañ ma ci ay ndey mais moom wax ja saf na ko parce que permettre na ko mu ajaat niveau bi Modou ñun je me rappelle fan yële sama boy dem nañ fa di jëli góor a mais bi ma gisee l'image de dama yéemu ci yàlla Modou du mbër muy muy coriace comme ni mbëri tool déedéet mburu dafay cere dafay set te loolu gis naa ko ci moom. bu ko defee dañuy dugg li ci li nga xam ne moo di préparation mystique làmb ji mystiquement ban point lañ ko mën a xaare est ce que xam ne mystique ci làmb 2 pour cent la gis nga ñu daan mbër ba taay mu tekk ay téeram dagg ne sama seriñ nax na ma parce que benn yàlla kenn du ko jiitu ci dogalam tey. bu Ama Baldé waree daan motloo su Modou Lo waroon juróom-ñaari suuf te yàlla dogal ci day daan bés bu Ama Baldé waree daanu buñ jëlee sëriñ ña nekk ci Guinée Bissau yëpp dajale yom da nekk Inde ak Chine bu waree daanu yàlla dogal ko dafay daanu donc loolu xëy na nous sommes des Africains du ma ni mystique amul lu am la lu nekk la xarfu foofu réalité la mais nag ñaare su fekkoon ni lu am dool la ci sport kon Angleterre kon anglais yi duñu ñu dóor suñu coupe du monde bi passé gis naa ñu def ci mystique loo xam ni amul fenn donc yooyu bugguma sax sportif wala athlète bi di ci di ci def focus mooy mbër day gudd rëy am doole na jekk ànd ak ay bokkam. jekk ànd ak i mbokkam boobu sax nag dañ ciy dugg làmb ji dafa weesu ñaari mbër yi. tey dañoo gis ne dafa dugg ci diggante famille ak famille koñ ak koñ parcelle ak Pikine coow li bëri na ba ci politique ndaxte kii di Ama Baldé moom nëbbatoot nëbbatoot nëbbatuwul Pastef la bopp ki nga xam ne moo di Modou moom mu ngi fësal ki nga xam ne day jàppale moo di am Amadou Ba nekk premier ministre dëkk parcelle ba pare nag bëgg nekk président de la république est-ce que làmb jooju mën nañ ci xaar violence concernant les supporters Euh, ndaal c'est vraiment c'est désolant dëgg la nag mbër yàgg nak ak yàgg na ak politicien du tey l'histoire dañoo Balla Gaye de ak Malick Gakou ak mbëri way yoy fi lañu fajj ñu l'histoire de Abdou Karim sallak ak Massina nangam naam ba ci bu jor Abdou Diouf loolu yàgg na mais xëy place lamb du fofu mais mbëri des fois l'amb def leen ko obligé xamul tax moy buñu amé amee bés politiciens ñoo ci ñoo ci ay da ma sa dégg boy ñaan mu ne ki nga xam ne saa boo ko soxlee mu teew jàppale la kooku bu la soxlaa da ngay teew te ku ne xam ne ni nag li politiciens yi di teew ak di jëf ci mbër yi à part amul keneen ku leen koy jëfal du dëgg mais la ma waxoon laay wax ñu ngi ciy ŋàññi Lamine Samba di ko ci nang na mais Lamine naa fekk son rôle mm. Lamine bu gisee Ama Baldé ñëw takk bracelet Pastef yoon la mu wax ko c'est tout à fait normal bon su ma doon tey conseil tey Ama bale wala mutloo seen place ñoom ñaar ñëpp du ci langue politique gi à l'heure actuelle comprendre nga li ma à l'heure actuelle c'était pas le moment maa ngi dégg ñu naan way ñoom Modou Lô ñoo ñu ëpp xaalis ñu ngi woo passé fii ñu jàppale Ama bale maanaam làmb ji tournal bu mu jëm noonu du palaasam politiciens yi chaque jour nga gis kanam gu bees teewu làmb di làmb donc nañu bàyyi waaye politique yi te am ñoom masla ak alaqa bàyyi leen ñu doxal seen bopp demal seen bopp ñoom ñiy bëre nañu bëre te xam ne seeni adversaire seeni moromu mbër la Ousmane Sonko ñoom kii ñoom mën nañ mën nañu dund adversité politique en deux mille vingt quatre mais ñun ci làmb la ñuy dox ci làmb la ñuy wax donc genre di affiché wu sax ci loolu c'est à éviter. éviter ba tax na nag buur dinañ làmb jooju dinañ si ñëwaat ne neenaal dafa yaatu dafa nekk ñaan ñoo xam ne dañoo miin bés nekk ay champion te kenn bëggu cee daanu dem dama bëgg ñu dugg ci tey ci ki nga xam ne moo di Eumeu Sène Tapha boobu la làmb ñu nu koy xaar le 12 incha allah. yow làmb ngay def léegi yow daal fan nga xamal làmb yow léegi yow amateur nga léegi. doomu làmb. Faajul nga dëkk diggante Faajul ak Faajal. doomu Joal laa ku xam <laughs> la <laughs> waaw bon mën nañu wax ni man combat boobu sant naa yàlla bokk naa keroog ci ñu toogoon ci plateau bi keroog di ko animé. Euh, Eumeu sax boo xoolee début bi il était un ndax comme li muy wax rek moom mënewul wax loo wax day ree waaye bi ko tafaatin gëddee gëddaat nag ci la mer. bi mu jógee dani ko. bés boo ma songee. Mm. naa la dóor ba nga sedd. dafa tiit na ko su ma la nee puusal da ngay puus. ñaar nag mooy comme wax bi wax Tapha Tine rek Tapha Tine li jot a seetlu ci moom. Mm. mooy de dafay mbër moo xam ni deux premières minutes. Mm. day absent. loolu ca loolu catam la. ñaare defet yi muy jël yëpp sur les deux premières minutes la koy jël. par moment boobu dafay sóor le public. te du xam yow mi muy dajal lan nga indi waaye lépp looy wax ba romb round d'observation boobu ba mu tëj sa angle gauche boobu armée droite am boobu doo ñëw def na ko fi keroog booy ña na gën daaw jéej bëri nañu ba temps bi jeex booy ñaa amul ci moom dara te dama waxoon ni dafay mbër moo xam ni bés bu xamee li koy daan daan ko dootul yomb te Tapha Tine dafa fu mu dëgg ma loolu dugg ci TNT bi Ama Baldé freiné ko mu nekk benn défaite boo xam c'est une défaite inoubliable ci carrière ci euh, Tapha Tine actuellement nag il a des ambitions d'être un roi des arènes loolu la gëm waaye pour mu dugg ci la carré du cour royal il faut mu daan kii xam ne moom mooy Eumeu Sène parce que fi mu jëm fa la couronne ba nekk mooy ci diggante Boy Niang Modou Lo Ama Baldé Gris Bordeaux ñaar ñi mës na bëre ak ñoom muy bëre ne Ama Baldé amel na ko revanche moom amel na revanche Boy Niang combat moom ak Modou Xarañ Lo combat jànq la combat moom ak Gris Bordeaux combat jànq la donc bu dofloo ba amaas Eumeu seen daan ko dafay taxaw bu taxawee Eumeu dafay duggaat ci biir cercle boobu parce que foo la jóge woon ndax dégg na roi des arènes mm. moom Tapha donc il est obligé de ku mel ni Sa Thiès

bool bool dañu gën a mobiliser topp ci ginnaawam mm. waaye ak li nga ci mën a ki may may yaa ngi dégg ama seen naan ko ñi ma waxee ak man ñi ma waxee ama seen li mu bëgg mooy tafaatin gëdd ko diriger le combat fital jaar mm. waaye nag ama seen li ma jaaxal mooy taay bu ko sut amagul ci moom ndam maanaam amagoo ci moom ndam daanagoo ko taay ci taayam boobu sax laa bëggoon na ñëw far nga anticiper ko ama seen ndaama la waaye ndaama la naqari bëreel mm-hmm. ndax Tapha mën na am ci Eumeu Sène dara ndaxte Eumeu Sène nag du du reculer donte ndaama du mm-hmm. reculer te ragalu tamit. xam nga ñaare ndaamal màcc dafa naqaree bëreel mm. mooy ndaamalu gàtt ba noppi dëj. te Eumeu dafa gàtt pare dëj. moo tax léegi ma ne la gisaguma mm. géant bu ko daan dafay jafe ci jom. parce que taxawaay bi muy taxaw bu wàccee ci ay tànkam yow njool mi téye obligé gën a gën wàcc wala gën a sëñ te boo sàmmul say tànk dina la defloo quatre appui wala mën na ngooy ci sa tànk nelaw ci ba nga toog donc loolu lépp tabaatili aussi mu ngi koy sóor mu ngi bàyyi xel ni que ëmma mën na jaxase bëri bi à tout moment waaye li ma koy déconseillé ci combat mooy bu mu samp jaaga samp samp jaaga déedéet mooy mm. samp suul ay tànkam pour xeex d'accord ma ci xëy na nag xeex bi doon soq ak bëreem maanaam xeex bi na ko ubbee bëreem pour jéeloo ak tafatin waaye xeex bi mu sax bu saxee tafatin est un fin fond boxeur mm-hmm. am na doole te macha allah ci jot na. wante kii di Eumeu na ndax xam mais xam nga taay bi muy bëreel la. Mm-hmm. ki muy bëreel boo sampee jaaga mën na la may distance su deux mètres. Mm-hmm. ku mu la yónnee di nga jot te doo ko te doo ko atteindre. affaire de longueur la. voilà moo tax ma ne la bu mu samp jaaga. mooy nag na ubbee bëre bi xeex. jéem ko touché tafaatin taf taf li muy def lépp da koy chronométré moom moom ama seen. mooy da ko war a riposte mu jéewaloo ak moom. waaw mais du samp jaaga booy ñang moo gën a ci mbëri. bi mu sampee jaagoon tafaatin dafa ñàkk. donc tafaatin ak taay bu yor ak ni mu toll. pourquoi moo xam bu tàllee ay loxom bu la mën na la coups jot. kooku doo samp ak wante boobu lee làmb sax comme ni ma ko waxee dinañ ci delluwaat dellusiwaat ndaxte le 12 lay am ñu dugg ci beneen làmb mu nekk làmb boo xam ne affiche bu rafet. Hmm. nekk diggante ki nga xam ne moo di Siteu ak kii di Lac de Guiers 2. Hmm. ñu gis keroog seen euh, conférence seen kii bi seen. Euh, face to face bi face bi Siteu coow li bëri na. Hmm. te Lac de guerre ko ko xam-xam ne dafa calme. Mm-hmm. Siteu est-ce que nekkul wax ji da koy daaneel wala dara. <laughs> déedéet xam nga. Siteu ko nekk xam na ne c'est un tarkinda. un <laughs> tarkina ne recule jamais un tarkina ne meurt jamais. Mm. tey Lac de guerre est le favori à 95% pour cent face à mm. Siteu. mais Lac de guerre, actuellement moo ëpp ñëpp problème. Mm. parce que ay supporters am bégguñu ak lu mën a am.

te moom dafa miin ay nul. non bu nilee ak Siteu. Siteu ko daan bu daanee bu daanee Siteu par avertissement Siteu moo daan. Siteu ko daan donc Siteu commencé na def ci bop Lac de guerre doute. parce que barki dem seetaan naa seen face to face déglu naa communication j'ai vu <laughs> le visage de Lac de guerre. 2 maanaam mu ngi commencé douter wu ci Siteu mooy il était plus confiant que seen daje bu mujj bi dégg nga si mu ngi koy wax xool ma ci biir yi bët xool ma dama bëgg nga xool ma eh xool ma maanaam Siteu mu ngi commencé mooy la ma doon wax mooy que il peut bel et bien la Lac te bu ko perturber ba à un niveau là Lac de Guiers 2 dafay dutew te bu dutewoo li ma gën a ragal mooy day téye boppam moom lépp ku gënal daan te bu teewee boppam am na façon lutte bu muy lutte bu ci muk mook ya yaakaaruma ni combat am dana yombati. combat am dana yombati. ñu gis né sax day Lac de Guiers nit ñi dañu naan teugël ko combat manam yaq xaaliss la ndaxte mom bëss ba du ñëwé du bëré wa peut-être dafay mu ragal gatch rek. te Lac 2 fi mu toll Lac de bi gis temb ak forme physique bi mu yor warul mëna taxaw ak Siteu deux minutes minutes war ko bëre ak Siteu mais moom taayam dafa mus a impressionnant mais du def loo xam ne daanaka nit ñi dañu naan ñaam bi sukkal la rek. yaa ko wax de. non nit ñee ko ndax yaa ko wax de kan moo ko wax ci nit ñi. lim ñi ñi ko wax ñu xam naa leen ñoom ñoo ma ko wax. mais moo tax ma ñëw di koy laaj. lan da lay kojjee. du ma def dara sama mag la. la dëgër nga ñaam sukkal la. du ma def dara sama mag la la dëgër de xam nga nekk il fut. l'un des champions xam ni soir làmb bind na ko. Hmm. ci carrière. la dëgër de a un très brillant carrière. wax dëgg yàlla yonent bi mais mooy li ma la wax day mbër mu ragal gàcce lool ba di ko sóor waaye combat ma contre Siteu défilé pour Siteu waaye moom tamit pression bu rëy rëy rëy la ci moom loolu mu amul ma dem te ñëw te Siteu mi ma gis pare na pour indi Lac de Guiers xeetu saytaan yoo xam ne bu juumloo ko wala mu indil ko ay problème mm. donc moom tamit na sóor loolu na ko bàyyi xel Lac de guerre dans sa dans sa simplicité wante site, mu nekk ni ko xam ni daanaka il est exceptionnel. Mhm. làmb jooju mystiquement lan lañ ci mëna xaar. Wa xam nga làmb mooy li la sank rek. Mhm. làmb mom mystique. Mhm. <laughs> lu néew la ci. loolu waxi ndaxa ndaxa nak la rek. Mbeuri dañ koy def xejna pour lamine yek beut yi lay ne xool ak nangam ak nangam mais geumuma ni ka sax amna ci ben ki woowu. ñom ñaar dal geum na ni Siteu il est jeune. il est le plus jeune.

zostay carrière fan la mëna téli kiri parce que danaka ki di Ada Fass dan nako est ce que carrière mëna mënati na continuer ci lamb mais jos est un showman ñu ci melni ay jos ay goor gi mënu ñu ñak ci espace bi nga xamante ne que espace lamb jos da fay neexal bes c'est un showman donc xalé yaangi ci kinam lamb ñett la da ngay say mak bëre ak sa mas bëre ak say rak jos bëri nak ay makam na ak -hmm. tey fi mu toll mooy bëreeg ay rakkam ay rakkam Ada Fass na waaye am na yeneen jeunes yu des a ñoom soq ñu ngi ci ginnaaw ak ñoom marle <laughs> ñu ngi ñëw a ñoom mbay guy gi ñu ngi ñëw gaa yëpp xale yëpp ñu ngi ñëw te Zoss dafa bokk ci ki leen war a mën a may chance côté boobu man bàyyi ma ñoon dama koo ci wax félicitation mooy jeunes yu bëri ci làmb yëpp may na leen seen chance donc Zoss mënagul disparaître day def ci lamb ji di may ay rakam chance ba carré dem jeex mu dajal ay millions dem tëdd mbour mu dem dajal ay ah oui oh, iya. wante buur dinañ dem ci app wax nga ko sank ci say bir hmm. wax ci mbour bo xamne ni ñame na show wante tamit bo bu joté dana ñëw bëré muy guy gi waaw mo Ada Fass mook Ada Fass seen combat bo non lañ lañ ci mëna a waaw nit ñi ñu ngi japp ne combat bu nara neex la nara neex waaw xam nga xam nga guy gi Euh, yàgg na bëgg défi te guy gi ñaare boo xoolee fii Ada Fass toll tey ba fa Siteu tollee guy gi moo ko faren dafa bëgg moom xale bu xale bu jug daf ko bëgg walla xale bu bari coow te Ada Fass nag damay wax ne day mbërum Ndakaaru keroog ba mu bàkkoo ba taala loxo war a ginnaaw keroog dama ne ah mbay géyee laa xale la boo xam ne Ndakaar du jam ci moom yaakaar tey dama ko ne téye un jeune boo xam ne tu faut des millions de centaines de millions donc góorgóorlu nga xam sa bopp dëggal sa bopp liggéey am da nga ko am te góor gi bu mu jàpp ne que day <laughs> mën na daan Ada comme ni mu ko bëggee Ada li mos mm. bërki dem ragal naa ne day génn réew mi dem liggéey ji wuuti doole mm. ndax nag mooy xale man làmb ñaare dama ko ci gëm mm. saa bu xale di dajeek mag man buur xale bi laay def yi mag mi nag sur ci taxawaayu surprise laa koy teg à tout ma mën na daan waaye xale bi quatre vingt pour cent mu may ëpp chance parce que doole ndaw la doole du mag yow tamit nag ndaat man am na loo xam ne mënatuma ko doole ndaw la ba tax na nee naa la làmb yi làmb ji suñ si wax mm. duñ ci pare ba tax na nag dañ leen di jox dig daje beneen yoon ci yeneen ay sujet yoo xam ne nii concernant làmb ñetti affiche yi nii la dinañ ko développer incha allah mais buur balaa ngay tàggatoo dama bëgg nga wax ñu dara ci suñu projet bu bees bii di DBC Média nekk projet bu bees mhm. amagum benn weer kese mhm. nga ñaanal nga wax ñu nag say xalaat ci DBC en tout cas li mu mën a xam mhm. mooy que tu es sur la bonne voie mooy que li jafe animatrice si yàlla may na la ko mooy déglu mille bii léegi ma def ci vingt ans xam naa kii kii mooy que ben bi ci des t'as pas froid aux yeux de poser tes questions man loolu lay wax chaque une animatrice wala un animateur buy seeti nit ay question mooy ay outil mm. lépp lu mu jàpp ni war na ko laaj na ko laaj courage boobu gis naa ko ci donc félicitations def nañu émission bu jaar yoon dans de l'art avec des questions très pertinentes para li nga li nga la ci lamb yeb sax japp ma noonu ko de yalla xam nga ko ci xam nga ko ci lamb donc euh, ñu ngi lay wax du courage hein mm-hmm. en tout cas euh, DBC est un très grand projet mm-hmm. ma di ci nuy sama xarit Gaymar mo di len ñaanal yalla rek mbir muy fi ah, ken momuko moy mm-hmm. nit ñi internet bek télé yi mom marché la rek nit ki nak bu xé gaddu paye marché dem ci marché ba li li bëgg lay ndugg donc góor-góor rek gën a gis naa ni que ci côté équipement macha allah logistique te mbiru image li ci jiitu mooy logistique gis naa ne vraiment vous êtes très bien donc li ci des nag liggéey rek liggéey rek amul leen liggéey sans relâche. parce que liggéey média moom. Mm. heure boo relâché wala nga ges mm. dañ lay romb. Mm, liggéey la sans relâche donc félicitation monsieur le caméraman. di wax gars yi bu dee mu ngi ci YouTube bi nañ dem abonné ji. te topp ko waaw incha allah macha allah day gën a baax. jërëjëf hmm. ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax uh, Bour Gueweul tey nag uh, mbokk internetu DBC Média crème de l' moom lañ leen andiloon ku xam buur Gueweul xam ko ci franchise am xam ko tamit ci li nga xam ne moo di làmb ak ak analyse yu nga xam ne dafa pertinant bu ko defee dama leen di jox dig daje beneen yoon ci beneen entretien spécial ma àndoon ci nag ak ki nga xam ne moo di sama caméraman di ba beneen yoon incha allah mbokk internet yi.